ñu ngi leen ñaan nga abonné wala nga assistant vidéo bi te bëss class bi bu dugulé vidéo nga mën di jot notification wa sallallahu wa sallama ala majma'i suunihi wa haqiqati kunhi sirrihi sayyidina wa maulana muhammadin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 dama waxoon la ko ci yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min arriba defaloon naa la ci benn waxtaan démb muy aaya joo xam ibnu kathir mu dafa wàcc ci bani amrin ñu nekkoon ca saqiif ak bani mughirata dafa ne ñoom dañoo jëflante woon ak riba ci jaahiliya booba duggugun ci lislaam bi lislaam ñëwee fekk na riba googa ñi jëflante woon jeexagut waa saqiif sàkku pour jël ko ca lañ ko leblante woon ba ni mu xiira bañ ñi bokku diisoo léegi nag ba ñëwee yàlla wàcce aaya ji xatte leen xatte bu jub ne leen daal la ngeen leble woon ak lu muy yàgg yàgg yàgg moom ngeen sañ a fayeeku la ngeen ca tegoon bàyyi leen ko bi aaya ji wàccee sax am na ci saxaaba yi ñu bëri benn benn yu doon jëflante ci lii aaya ji wa sababu nu def leen a dugalaale ñu mujj fayeeku seen bopp alal ya la ca tegoon ci riba ba yëpp ñi annulé ko ñenn ña sax dañoo dem ba far saraxeaale bopp alal ja kon loolu mooy sababu nusul bi loolu ibnu kathir wax waaye waxoon naa la démb bi may tàggoog yow nag ne la riba daal ñaari xaaj la ribal fadli ak riban nasi'a am ci riba yi riba boo xam ne yéexe rek moo ko tax a xaraam waaye duhut ndollal am ci riba yi boo xam ne ndollal moo ko tax xaraam dafa am ci xeet yi xeet yu nanguwut ndollal nanguwut yéexi am ci xeet yi xeet yoo xam ne nangu na ndollal waaye nanguwut yéexe waye amna ci xeet yo xamné nak nanguna yéxé nanguna dolal nangu na dollal ma dégloo nag ma farañ fanché la ñett yi la yëpp ci cartonal yàlla riba nasi adal huwa alsiyaadatu almasruutatu allati yaxuduha daainu min almadini nadira tajil wa hada alnawu almuharram بالكتاب والسنة وإجماع aima ribaawu yéexe gi daal mooy loo xam ne aji boru ji kii leble bi dafa ko sartaal ak kim lebal ne ko mën nañoo dolli ci xar mi kawar su ko defee tamit yokkaat diir ba maa la leboon fanweeri junne ne weer wu dee lay fay weer wi dee mënumaa fay nga ne ko mën nañ cee dolliwaat juróomi junne nañ ci dolli juróomi junne yokkaat ko ba beneen weer wu dee loolu ci xeeti yéexe la dafa xaraam wala muy yoo xamee ne nii nangu na hëppalante waaye nangu wut yéexe waxoon la ko démb bi may tàqali ko ak yow ca gaa ya nga xam ne ña ngay wecci ñu bëgg a dem bitim réew di ut euro mbaa ñuy ut dollar taux booba da ca dolleeku daal tagan na dara nekkut ci waaye li sariya di bañ rek mooy yéexe ga jox ma ma jox la rek waaye jox ma ma dem wuti xaraam na waxoon naa la démb ñi ci yàqule ci ay xalal ni ñu bëri moo tax yàlla lum la tere rek sa njëriñ nekkut ci so ay sa moo ci ne boo jëlee waa jox ko vingt mu dem di la utali euro jaaree fa daw foo koy waxee ji ba muy uti dollar jaaré fa daw sokoy waxé ji yow mi sipp soow ngir bëgg ngénte waxal waji na dagalé rek bu sooma dajé hé lu gën mëna jubo ya xam ben liter ñaari kilo dugub dagan na wa ci sartab dugub jaangi ni soow ma ngi ni yow may jënd jën dagan na ñaari kilo jën kilo kilo dugub waaye ci sartaab dugub jaa ngi jën yaa ngi waaye aw ma dem jëli sa xaraam na mbooleem xeet yu wuutee yooyu yëpp ma tuddal la dagan na xëppalante comme xeet ya bokkuñ waaye daganut yéexe tey boo xooloon tey gerte ak dugub bokkuñu waaye ceeb bi ak dugub ji bokkuñu dagan nañoo xëppalante ci ñaari xeet yu wuutee yooya gerte laa bëgg yow dugub nga bëgg ma jox la ñaari saako jël benn saako dugub ci gerte gi waaye nag am indi rek ma dem jëli xaraam na ca kon saa yu xeet ya he, xëppalante ga dagan na waaye yéexe ga daganut bu fekkee ne nag kooku mooy riban nasi'a riba ribal fatli nag mooy boo bëggee jaayee xaalis ci xaalis rek xamul xëppalante dërëm dërëm dollar dollar euro euro CFA CFA dalasi dalasi amul bii këyit la amul bii moo gën a beese yëpp dafa xaraam li xew tey ci lenn ci borom oto yi koo bëgg a weccee ko ab 1000 francs dem ci borom pharmacie ba bëgg mu tegal la ca ñaari fukk wala fukki dërëm wala ngay tooñ ñoo xam ne ñu baax lañ naan wéccatu bambaye fi ne te waa mbay baax lool loolu lépp daganut wala nga ne wéccatu bawol ba wala fi ne te bawol bawol yi baax lool mën a joxe hadiya yooyu yëpp dara baaxut ci comme daal seefa seefa la daal nañ xem képp daganut xëppalante yaa xam nag nu xaalis ba ñaawee yaa xam timit nu weccat wa tasaarooyee donte yow weccat ngay hut timit yooya xaraam na moo tax bi daan wax ne laa tabiu dirhama bi dirhamayni فإني أخاف عليكم الرماء أي ربا من بولين جاي بين درم سي نياري درم داماي راغال سي يين اك ربا كون كوكو موي ربا الفضل كوكو موي بيع النقود بالنقود او الطعام بالطعام مع زياده وهو محرم بالسنه والاجماع لانه سريعه الى ربا النسيئه داخ موم بورت لا بو خامني kuy dugg ci ribaahu ndollal rek bu yàggee nga dugg ci buntëb ribaahu yéexe dafa la koy hubbil sax nga dugg ci ca saasa moo tax yonentu bi tere ko bu leen jaayee benn dërëm ci ñaari dërëm riba ndollal gi nag dafa am ay jëmm yu yonentu bi cité woon ay matière ne bu ci kenn hëppalante dafa ne woon wurus ak xaalis ak dugubu xamxu ak saayir ak tàndarma ak xorom ñoom daal kenn xamul droit ci xeet yi benn bi ci xëpp moromam wurus laa la jox jox ma wurus ñu xem kepp xaalis laa la jox jox ma xaalis ñu xem kepp buru laa la jox ab xeetu dugub bu sew la moom laa lay jox jox ma ko ñu xem kepp xorom laa la jox jox ma xorom ñu kepp moo tax hadis ma ni la tëddee al dahabu bi dahabi wal fiddati bil fiddati والبر بالبر والملح بالملح والملح بالملح ما نعم مثلا مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد فمن ساده او استزاد آه فقد اربع فقد اربع الاخذ والمعطي سواء حديث لبوب امام احمد بخاري نيوكو سولو كون جروم بن خيد لا يونتو تودون xaalis ak xaalis daal muy CFA ak CFA mbaa euro ak mbaa dollar ak dollar dara amul droit ëppalante ci wurus ak wurus nu mu mën a demee benn amul droit ëppale ci yaa xam ne wurusoo noo ko tuddee wii ki vingt quinze vingt et un carats laag vingt deux laag yëpp wurus ak wurus daal jeex na waaye tamit pepp buru bu sew boobu yépp ñoo war a xem jeex na xorom ak xorom ñoo xem amul droit xëppalante ci lii mooy yoo xam ne yonentoo ko cité waaye bu ko cité tamit day delluwaat ci ñaar rek benn ba mooy wurus ak xaalis ñaari fondation lañ yoo xam ne doomu aadama yi seen jëflante yépp ci la xajuxoo ci wattante mbooleem xeeti njëg yi mexyaarul asmaan yépp ci ñaar yooyu ci lay dellu mooy xaalis mbaa wurus su boobaa nag kon yooyu la bëgg a wax ne dagam lu ëppalante dañ caa xemle dañ jëflante gaa tax lu ñuy jëflante mu nekk monnaie buy dox xéexée kooku mooy benn xaaj ba bu ñaareel bi yem tuddaat yëpp xorom ak buróog ak maanaam xamxoog saxiir ak ya ca xaju mooy xeeti lekk yi yooyu doomu aadama dañ koy soxla di ko dundee kenn mënul dund bàyyi fi bàyyi fi yooya kon nag lañ cay déggee yam tere yëpp dafay dellu ci ñaar mooy yu jëm ci muamala yi xam ne ci la dafa aju ci mone lépp lu dugg ci wàllu mone xëppalante ca comme wenn xeet la xaraam na lépp lu jub ci loo xam ne dañ koy lekk matière la dañ koy dundee su boobaa xëppalante ca xaraam na waaye yi nga xam ne dundee wuñ ko rënd laak yooya dafa yëw di complété yooya moom xëppalante ci dara nekkut ca waaye nag dund bi muy ceeb bi. xamul naan ñaari saakooy parfumé ak saakoo mbay bi yëpp ñoo war a yem kepp ceeb ceeb rek la xamul dugub ji lii la comme dugub ji daal suna la muy suno jeex na saaño bi saaño bi jeex na mboq mi mboq mi lii lañ ko bayee ak mboq mi yëpp mboq mboq rek la mun la koy xatte oo kon yooyu yëpp dafay dellu ci ñaari xel la yooyu mooy lu aajowoo ci jëflante ci monnaie bi ak lu aajowoo ci li nga xam ne dañ koy dundee yooyu lépp lu ca dellu daganut xëppalante waaye dañ cee war a kepp su ko defee kon nag tudd na yooyu la yonent bi tudd waaye moo tax dañ cay xiyaas yem ca tudd tam bokk ca xoolal tuddul tàndarma waaye tudd si la bokk tàndarma daganul xëppalante doo ñëw naan ko tàndarma ji moo gën a rafet bii moo gën a ñaaw yonentu mos naa yónni nit mu dem ne jaay nañ suñ tàndarma ja suñ tàndarma ja dañ koo jaayee mu andil ko tàndarma joo xam ne bokkut ak jim xam mu laaj waa ji ne ko ma haza min tamrina tàndarma ji bokkul suñ tàndarma ji fa qaala rajulu ya rasulullah bi'na tamrana sa'ayn bi sa'in suñ tàndarma ja dañoo jaayee benn saa ci ñaari saa yonent bi ne ko saa kër riba loolu riba la rudduuhu suma bi'u tamrana dem leen ngeen delloo ko te jaay suñ tàndarma ji bu ngeen yoree njëgg ba pare door ñoo jëndal door ñoo jëndal nag tàndarma waaye dem di ko jaayee ñaari kilo ci benn kilo loolu xaraam na kon foofu tudd tàndarma ci hadis bi waaye ba mu ko waxee dugg na ci tuddul ceeb mais ba mu ko ba mu waxee xeeti ñam yu yooyu mu tudd nga xam ne dañ koy dundee dugg na ca kon yooyu dañ cay xiyaas lépp lu bokk ak moom la ci lu ñuy dundee wala lu bokk ak moom la ci lu ñuy jëflante ci monnaie bi su ko defee te ca des yëpp dugg ca ya ca génn na génn na ca yoo xam ne nanguut ak moom ci benn yàlla bokkut ca kon nak hadis ba ngok nga déggee ci ne kon su fekke watte gi wenn xet la eh dana dagan dana dana dagan heppalante gi waye dana harami yéexi gi ak mone la waye moné ya ño bokku luñ man bokku ñu wenn xet comme ni ki man wurus la am bëgg xaalis ba nga yoré bëgg wurus mi ngi melni ki bëgg CFA bëgg ki bëgg dollar wala kii bëgg euro waaye ñoom ñëpp xaalis lañ ñoom ñëpp monnaie lañ waaye nag wuutee nañ kon dagan na xëppalante waaye daganu di yéexe kii tamit dafa bëgg xamxu dugub la kii bëgg saayir wax dëgg yàlla ñoom ñëpp dugub lañ may bokkuñu xeet mi ngi mel ni man la ceeb ak ceeb ak dugub su boobaa man ceeb laa am kii am dugub dagan na xëppalante ba waaye nag daganu di yéexe jox ma léegi ma jox la mu jeex. kon nag moom la yonent bi wax ne laa ba'sa bi bay'il burri bi sha'ir wa sha'ir aktharuha yadan bi yadin la ca xam sarta rek mooy jox ma ma jox la mais amut ëppalante ga moom dara ñëwu ci waaye nag daganul yéexi kon nga déggee ci na xeet yi le bu ñu wuutee jaayee leen lu leen neex waaye nag yadan bi yadin yonentu wax na ko fa ida ixtalafat hadihi al asnaaf haadihi l asnaafu fa biicu kayfa shitum ida kaana yadan bi yadin bu loolu amee dara nekku ca waaye nag su fekkee ne huwa uhu teegi ci wenn ci wenn xeet wi la xel la ba tamit nekk benn benn xel la benn xeet la su boobaa kon nag fa innahu yustaratu shay'un benn raf benn rek lañ ciy sartaal fa yaxilu tafaadul wa nasaa maanaam dana dagan xëppalante dagan na yéexe luy loolu man dugub laa am yow nga yor xaalis waaye waaye loolu dugub ba xaalis lu bokkuñu foofu kan xuutee ga xam na ita xalafal badalaani fil jinsi wala illa mooy watee ga xam na ca xeet wa am ca illa ba kii yor xaalis bëgg dugub dagan na xëppalante gi dagan na yéexe gi mën naa laa jox dugub ji ba pare door a indi xaalis bi kii tamit tabaarakallaahu dafa bëgg dugub kee bëgg xaalis dagan na xëppalante gi dagan na yéexe gi fofa dara nekkut ca kon nak waxna la ñetti façon yi fi nga ni daganut xëppalante daganut ak fi dagan waye waaye daganut yéexe ak fi dagan heppalanté gi ak yéexe gi yëpp waxna la ko kon nag riba ngok dañ ko daw ak ngir li ci yonantu bi wax waaye gis nga nag ya nga xam ne tey yonent bi tuddut ko duhut lu ñuy dundee borom xam-xam yi boole huñ ko ca dagan na yoo xam ne xeet ya xuutee wala yoo xam ne benn xeet wi la waaye nag bañ nekkee di benn xeet tamit yonent bi bokkut ci ak ñaari xel la du ko duggul ci xelaab euh, mone duggul ci xeetu dundee ibnu munzir nee na sax na ne yonent bi jënd na benn jaam ci ñaari jaam jaayee na benn jaam ci ñaari jaam joxe benn jaam yi jox ko ñaari jaam te pourtant ñoom ñaar ay jaam lañ waaye doo wax ne comme nit lañ kenn kon ne nañ tolloo déedéet ibnu munfira wax ne sabata anna rasulullah sallam istara abdan bi abdayni aswadayni ñaari jaam yu ñuul lañ woon jaariyatan waaye tamit naka noonu tamit yonent wastara jaariyatan bi sabaati ruusin jël na benn jaariya benn mu jëndee ko juróom-ñaari jaam yu góor loolu saafee yu dem ne kon nag léegi-léegi lenn nekk wenn xeet te génn ca mone génn timit ci dundee boobaa dana dagan ëppalante donte wenn xeet la mu tegtale wax hadis bii waaye timit loola dugal na ci sax moom mazhab bi gàtt yi dagan na tey benn xaram baali baali nga jëndee ko fukki xar yoo xam ne ni duñ xari baali baali ndax duwul lu ñuy dunde duggul ci monnaie dara nekkul ci moo tax loolu Omar ibnul Aas la yonent bi waxoo ba mu ñëw mu digal ko ne ko demal ca mu mu mu amarahu an yaqusa fii xalaa'isi sadaqati al ba'iir bi ni ila sadaqa mu ne ko demal nga jël benn gëléem ñu war koo wattee yeneen ñaari gëléem xaar ba alali sarax ji ñëw ñu door koo wattee kon yonent bi jënd na benn gëlëm ci ña maanaam wattee na benn gëlëm ci ñaari gëlëm te foofa la ci la fuqaaw yi jëlee na benn gàtt nit ki mën la ko jox nga jox ko ñaari gàtt dara nekkul ci ma am sama mennam kuyel baali baali mu rëy nga jox ma fukki xar yii ni ci xar yi ma jox la menn xaram baali baali dara nekkul ca loola ma wax la mën naa dugg ci ganaar yi ganaar yi Sénégal yi ak ganaar yi yi dara nekkul ca kon joosu bayu saatin bi nasiatan tan mën nañ koo sax jox ma ma jox la ben xar nga war jox ñaari xar bu wer wi deexee dara nekkut ci waaye dagana tamit nak dan nga jox ma legi ma jox la ko léegi nga dem ma dem naka non te waga zalika saatun bi saatin jaaye xar ci xar mu nek luñ teewal legi mba mu nek luñ yexe dara ci mala xar ne bu wer wi deexee nga ñoma jox la sa boss dara ci bi def nako ci lo xamne moko digal mun mo genn moko wax mu digaloon ko xamati ñu kon demet yooyu yëpp dar nekkut ci waaye nak su fekkee na ben xar la muy yàpp wa xaraam na mënumaa rendi xar ba pare di wattee yap wuñ rendi wi ak benen gatt bële muy xam xëppalante bi nga xam ma ngay dund jumhurul ayima loolu lañ wax dañ su bañu yin yukalu bi lahmin min jinsihi hayawan jaay hayawan muy dund ci xeetam wax ñukoy jaay lolu haram na kenn du euh, euh japp karma ngi ni pess nañ ko muy fukki fukki fukki fukki ki fukki go wala nag wi pess nañ ko muy fukki go par exemple wala bari go, wala bari go ci waxin dal nga ne ko nag léegi nag wi ñi rendi ba pare pessel ma ci ñetti go, ma jël ko yobbu te yow nga jël nag wi nga xam ñetti bari go la xamuñ buñ ko fessé dindi ki yoy na muy toll loolu dafa haram wenn xéet wi la te borom ñeenti tànk yëpp risaal ne na ñoo bokk wenn xeet borom dunk yi naaw yëpp ñoo bokk wenn xeet kon laa ye joosu bayu xayawaanin yukalu bi laxmin min jinsihi fa laa ye joosu bayu baqaratin masbuxatin bi baqaratin xayatin jaay nag wuñu leen di ba pare di ko jaayee nag wuñu dund daganut kii jublu lekk kii jublu yar daganut ñoo bokk wenn xeet bu xeet ya wuutee woon nag dara nekkut ca defut jaaye tandarma ju toy ci tandarma ju wow tandarma ju wow gi ñu tollu xam nañ ko waye ju toy ji bo wowee ni ñu toll duñ ko xam kon daganut motax ah, yonentu bi tere nako dañ ko ko laaj bo hadis bi abu Dawud moo ko solow mu ne nañ ci sa'd ibn abi waqaas ana nabi suila an bay'i rutubi bit tamri fa qala ayan qosu rutubu ida eh, eh, mana ida yabisa ndax bu toy bi bu dana bu woowee ñu ne ko waa day wàññeeku kay muy wàññeekoo nag kenn xamu ko mu ne kon xaraam na bu leen ko def. kon yonent bi tere na ko kon ribaaxa ngoog ya ca nangu ndollal ak yéexe ak ya ko ca nanguwut yëpp wax naa la ko yàlla ñuy tere ci lekk riba gi la taakulu riba adaafan mu doafatan mu nekk lu ñuy ful rek te loolu moo am ci banque yi presque buñ démé ba yegg ci dir ba mëno fay ñu yokkaat diir ba yokkaat borba da dana dem ba intérêt ya mu ji ëpp sanal bor bi do ko mëna a fayee ñi jaay sa kër gi juroom benn million nga ko taylé hon kër gi mëna fan wéri million ñi sét nuñ ko jaayanté génne la kër gi sé ñew génne sa bagage yi motax yeen ñi yor ya suuf lo soxla ci alal joxe suuf suuf dafa diis lu muy xëccu suuf xëcc ko motax soxla bo am bam jaral a tayle demal seeti nga tayle sa kayitu oto wala yeneen ya waaye kër kayitu kër sa njaboot dugg ci nga tayle ko jotaat ca aka jafe ku ko def xam nga ndimbal de boo ko defoon ba génn ca bu ca duggaat de bu ca duggaatee rek xam problème suufa diis lu muy xëccoog rek suufa koy mujj xëcc kon nag tabax sa kër dem di ko tayle ci loolu ba xëy ñàkk ko bu leen ko defati bàyyi leen ko yàlla bëggul loola dafa amoon ci yenn boroom xam-xam yu sàggan naan riba su fekkee intérêt ba tuuti na ba lorut waajooju dara nekkut ci wax ju bon la ju xaraama xaraam la afa tuminuuna bi ba'dil kitaabi wa takfuruuna bi ba'd yéen ci lay dugg lépp a xaraam lu tuuti la ak lu bari la su ko defee yàlla daganal na njaay xaraamal riba nañ doyloo bénéfice u njaay mi njaay amul bénéfice amul limite yow daal comme gëñoo fenoo amul ay booy nëbb kii jënd lu ca ne yëpp wax nga ko ko nëbboo ca dara lu ca man rek sariya nangu na moo tax mu ne wa ahalallaahu al-bay'a wa harrama riba waaye riba nag moom xaraamal na ko te ku ko def doo ci xam ndam da nga cee jëlee ak gotteeku rek ci sa bopp ki sa jëmm ki sa njaboot ki sa xalal ndax yam xaqullaahu riba wa yurbi sadaqaati suratu baqara aaya deux cent euh, soixante-six yonentu bi ne yàlla yàlla rëbb na kii lekk riba rëbb na ki koy bind rëbb na ñi koy seede rëbb na ki ko koy lekkaloo yépp ñoo xem ca bàkkaar ba kon nañ ba riba te daw ko suñ bëggee mucc bañ a xareeg yàlla ëllëg te kuy lekk riba bu yowmal xiyaamee danga nga ak yàlla te yàlla nee na maag sama yonent bi ñooy far te yàlla kat li xam di bari bari wax naa la ko ñaari yoon dong la takk geer mooy lekk katu riba ya ak gaayam yu baax yi di wëlli yoom yi kooko ci bañal bu ëllëgee dana geer ak yow kon yëg leen ne ñaar yi ñoo fi ne te ñaar ñi sax kenn lañ lekkati riba yëpp ñoo ñuy kontuntu yàlla ñi boo demee tey ñu financé la ay jàkka financé la ay nàngam bind loola ay téere ngay xas mag ñi luñ la wax ne na jëm ci ñii nga jëmale ko ci sa biir lekk katab riba nga su boobaa nag loola alimenté la moo lay yóbboo nga les sa xalimba dugg ci net bi wala nga def nàngam di xas gaa yu baax yi nga xam ne seen jëmm yooyu yàllaa ko tooke ku leen lal xalku moo tax ñaar ñi du ñaar di kenn la de xaskat ñii xas gaa yu baax yëpp noonoo leen ki seen xol foo leen fekk li alimenté seen jëmm ja di ko dundal daganut xàq jàmbur rek la ñu dundee ak ñaqi jàmbur rek la ñu dundee riba rek la ñuy lekk financement yi rek la ñu di tourné di ko jëmale ci seen bopp su ko defee nag di def ay photo yu kenn xamul di envoyé rek diine envoyé moom kenn xamu lan la léeg nga envoyé loo xam ne sa malaaka yi jotaguñ ko dafa fulu wala maanaam dañ ko supprimer ndax baaxul su ko defee tamit nga nekk ca loola di ca lagar lagar rek te loolu baaxul nañ tuub kon bala ñoo dee bàyyi ñaari jikko yu bon yi nga xam ne ku ca ne ba dee bàyyiwuloo ko da nga xeex yàlla ah moo tax yàlla na ku baax na ko in tubtum falakum ru'usu amwalikum La tazlimuna wala tuhlamuna kon nak nañ ci bàyyi xel ndax yalla dafa bax inna la la yazlimu nasa shay'an walakinna nasa anfusuhum yazlimuna yunus aya 44 xamna nak bu suba suñ bopp darsu bi moy aya bi gëna a gudd ci alquran mom la lay wax muy ya ayyuhallazina amanu ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubuhu wali yaktub baynakum katibun bil adli mooy aaya bi ca gën a gudd bu subaa bu ñu fi yàlla indee mooy nekk suñu bopp darsu di aaya boo xam ne moo mujj ci yaa ayuha yi nekk ci suratu baqara kon suratu baqara rek fukki yaa ayuha ak benn moo ci ne bi yaay walis na amano firil naa la fukk yépp bu ñu fi yàlla indee suba ci kartanam ak ci sañ-sañam ñu dugg ak yow nag ci fukkeelu yaa ayuha yi ak benn suratu baqara jeex ñu door a duggaat ak yow nag ci yeneen yaa ayuha yoo xam ne ci suratu al imran lay nekk aaya boobu nag bi suratu baqara ba ci mujj muy aayatu dayni mbooleem aaya yi nekk ci alquran moom mii moo ci gën a gudd xamul benn aaya bu toll nii ci alquran su ko defee tamit boo doon calculer baat yi rek dana mat téeméeri baat mag ñi nag amoon nañ ci sekkare yu rëy yuñ ci daan def tabaarakallaahu ci sekkareeb gudd fan yàlla mayoon na ci waa kër maam maas kay sekkare bu yéeme ci aayatu baynu bile su ko defee nag lu ca mën a am yàlla dafa ñuy sant ne su ngeen nammee leblante ci bor mu jëm diir weer wu dee waa mbaala 15 maa ngi leen di sant na ngeen ko bind ka koy bind na maandu su ko defee tamit na ko bind na ko yàlla santaane ñi bindee ko ko su boobaa kay leb nañ ko baxi mu tudd lañ ko lebal ne man mii diw di doomi diw level nama ma bis sanggam ci weer sangam bu tollok weer yu nangam téeméeri junne bindal xam nga mom du ko yokk kee tamit di nangu di bindul nangu mu wàññi ko su ko defé nak mu ne ko nangam mu ne timit diw ak diw ñoko ko sédé mo sax mu ne wastashhidu shahida min rijalikum kul len ñaari goor mu sédé ko su ngeen ko amut ut len manam genn goor ak ñaari jigen su ko defé mu ne diw ak diw ñoko sédé ne lebal na ma téeméeri junne la quinze janvier na ngeen seede ne maa ngi koy fay la quinze février mu tolloog bisab altine ban heure nga ne midi waxal heure ba wax date ba wax lépp waaye nga door a yëkkati xaalis ba jox la ko waaye waa ji ne la dama lay lebal nga ne a ah, ñeen nga ko seede mu ne ko xanaa xóolu xóoma ko la ko wax rek ñaareel de boo ko boo ko toppee moom yàq saalal de ne ko naa la waaye jamono ji laa xóolu xut ndax mën naa dee te dañ maa war a donn yow woon ngaa dee dañ laa war a donn kon bàyyil ñi bind kóotal ko seede bu ëllëgee ñi may donn xam ne lii lañ fi lii lañ fi fekk su ko defee ngeen bind ko ba mu leer naññ xutal ko ay seede nga téye mu téye seede ya téye ngeen pasaaroo bu ngeen ci demee du ngeen xam benn bor benn problème yàlla nee na bu bor ba tuutee bind leen bu bor ba rëyee bind leen bu diir ba jegee mbaa diir ba sogee bind leen su ko defee bu seede kat ya fàttee lañ bindoon mën leena a fàttali bañ mën a xam fi ñu sukkandiku kon gis nga aaya bi gën a gudd ci alquran la muy jëflante la muy traité mooy mbiram halal la muy traité timit mooy mbiram bor kon alal nekkul lu simple bu ko kenn foye yàlla nee na seen dund bi ci la taxaw koo gis muy basar de alal di ko yàq rek ku nar a torox la boo ko torox boo ko turul sa sa sa doxam kanam sa moromam gor bu ko foye teg ko ci yoon su ko defee kon nag aaya jooju daal xam naa bu ñu fi yàlla indee suba ci kartanal yàlla ci laa koy mën a leeral ndax aaya ju gudd gudd gudd la mbooleem yaayu xay yi ñu rombagum ak yi nekk suñ kanam yépp bii moo ci gën a gudd su ko defee kon danañ ko jéem a càmbar bu xajee ci benn waxtaan baax na bu xajee ci ñaar baax na bu xajee ci ñett baax na waaye daal fas nañu yéene leeral ko ba mu leer naññi ci seen bopp yéen ñi may déglu su ko liggéey bu ko liggéey kenn ku nekk xam fi muy teg tànkam ndax buur bu day ni yàlla bu la xooyee bi ni la invitation war ngaa xam la nekk ca invitation ba bala ngaa ko ji ndax boo ko wuyu ji fekk liiru woon lettre ba rek mu ne la xanaa jote woon sama message nga ne ko liiruma ko da ngeen di jafe-jafe kon nañ bàyyi xel loolu yal na yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi nga seetaanee vidéo ba pare. ah ñu ngi leen nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi te bës cloche bi dugale vidéo nga mën di jot yi.